Avant, bu ma dellu si ci man sama sama bopp ndaxte mouvement bi lancé woon nañu ko jotoon nañu si dëkk ci jamono yooyu euh, ñëpp xam nañ que ni en tout cas ñi xam nañ ko ñi ma xam xam nañ que ni man ci dëkk bi laa juddoo yaroo fi màggee fi Euh, samay waajur ñu xam leen fi ku ne doomu El Hadj Assane naa ne doo gaaw a réer fii Diourbel euh, di ne kon lépp lu ñu am benn jéego def ko ci jotaay bu mel nii rek daf ñu war daf ñu war parce que mooy dëkk bi nga xamante ne moo ñu gis ñu juddu màgg ba toog fi ñu toog tey di ko sant yàlla mais bu ma nee Diourbel du ma wax Diourbel rek yem ci ville bi wala commune bi wala ci benn quartier dama naan Diourbel wax ci département bi wax ci région bi parce que loolu dafa am sol xam nañ ne tey euh, développement laa bëgg ñu waxtaan euh, suñu waxtaan ma teel ko wax balaa ñuy tàmbali développement laa bëgg ñu ñu ñu ñu ñu waxtaanee ko parce que thème conférence bi loolu la assemblée générale bi loolu la également. waa léegi euh, tekkal Diourbel moom mi ngi judd comme ni ni ko Souley waxee sànq octobre bi ñu weesu la ñu ko lancé mu nekk mouvement citoyen de développement. mouvement citoyen de développement nag bu ñu ko waxee dafay nekk loo xamante ne dañ ci jóg pour mën ci liggéey liggéey ci wàllu développement encore une fois plus loolu moo ñu fi dajale tey lii du toogaayu politique toogaayu développement la bu nekkee nag du toogaayu politique ni ñu koy déggee maanaam parce que toogaayu développement dañuy jaxase euh, des fois loolu waaye nag bu ñu nekkoon ci euh, jamono boo xam ne xëy na euh, naxaate bariwul bu ñu nee développement rek dañu naan mooy politique mais tey boo gisee ñu séparer ñaar yi rek c'est parce que dafa am dañu yàq baat bi am nuñ ko jaarale fii si suñu réew ab ba mu laal sax ci suñu gox bii di Jurbel mais développement bu nekkoon réewu nasaraan yi la wala réewu développé su ñu dee développement dañ ciy teg politique de développement wala ñu ne politique publique loolu mooy ci fànnu dundinu doomu aadama lan la ñu mën a def ak naka lañ ko mën a organiser ak naka lañ ci mën a jàppee ak nag ban xarañte ci mën a indi ba nga xamante ne doomu aadama bu nekk am yokkute tey ak ëllëg ci suñu njaboot ak seeni ay njaboot loolu la ñuy wax politique de développement donc bu nekkee ni que développement mooy politique mën nañ ne jotaayu politique la mais bu nekkee ni politique dañ ko séparé ak développement jotaay bi man ootewuma jotaayu politique loolu dinañ ci gën a dinañ ci gën a xuus ba xam frontière bi ak ba xam ñu naka la ñuy taxawee ak ëllëg tam nan la ñu mën a mën a taxawee bien que ñaar yi dañu lié donc loolu yëpp dina dina ñëw ci ci waxtaan bi ñu am ci ay leeral bu baax donc mouvement bi euh, bu ñu ko créé pour ñu mën a liggéey mouvement dafa nekk loo xamante ne ñaar ñetti nit bu leen neexee ñuy jóg ñu créé mouvement moo xam nuñ ko munti tuddee loolu Sénégal am na liberté bu toll noonu mais nag bu ñu créé mouvement lii tax mu mën a liggéey mooy ñu formaliser mooy ñu jóge ci waxtaanu biir kër waxtaanu biir néeg dem ci liggéey loolu nag bu ci tollee moo tax mouvement bi dafa jur benn association donc le mouvement citoyen Dekkal Diourbel dafa jur benn association association bi ñu tuddee ko association Dekkal Diourbel ñu déclaré ko euh, taxaw niñ ci war a taxawee euh, depuis ay weer ba tey euh, ñu sant si yàlla Euh, ñi fi teewal nguur gi muy autorité jox ñu suñu récépissé maanaam reconnaître nañu lii di Dekkal Diourbel je pense que gis ngeen ay quelques image man ci sama jaar-jaar ci ay xalaat ci wàllu développement loolu dinañ ci ñëwaat mais loolu mooy première étape bi nga xamante ne mooy wane ne ñun dëgg dëgg sérieusement dañu bëgg a liggéey euh, ci kaw loolu yoon bi nag yombul woon c'est vrai yombul woon te loolu xëy na mën nañ ci ñëwaat tam parce que Sénégal dafa nekk réew boo xam ne tey yombaluñu nit ñi pour ñu liggéey man loolu laa jàpp ndaxte bu ñu naree yombal nit ñi pour ñu liggéey lu mel ni créer association warul am jafe-jafe ba nguur war la jox say këyit waaye tey ku fi jugoon ci yéen ne man dama bëgg a créer benn association wala sama mouvement bi dama ko bëgg a dëggal ba ñu reconnaître ma fu nekk reconnaissance bi nag du question rek dañu rag da ngay ragal nguur wala dara déedéet reconnaissance boobu këyit boobu mooy tax aussi nga mën a dem bu dee bitim réew sax ñoo xam ne yoo am nga formalisation euh, dafa am solo pour xam fan la ñu bëgg a jëm encore une fois plus ñun ñëpp ñoo war a mën a tolloo niveau de compréhension si li may wax mouvement dafa jur association association bi war a liggéey mouvement bi taxaw ci développement waaw léegi nag euh, bu nekkee ni que euh, loolu wax naa ko ci wàllu dundu mouvement bi lu mu gàtt-gàtt diggante bi quand li ñu booleeg euh, déjà mbirum mouvement wala mbirum association Dekkal Diourbel dafa yàgg lool parce que ay at ci ginnaaw su lay xaw na ko rappeler sànq Euh, dama am lijjanti ay partenaire yu nekk dugal ñu fexe ba dugal ci hôpital Lukey bu Diourbel nga xam ne hôpital régional la matériel médical bu bëri bu ëpp ay téeméeri million di dem may jël fexe ay nas tubaab yoo xamante ne ay sage femme lañ sage femme euh, diplômé ci hôpitaux yu mag yi di fa liggéey bitim réew ma fexe di indi ñuy dem ci dispensaire bi dispensaire u di jàppale jigéen ñi pour ñuy accoucher ñoo xam ne dañu expérimenté dem ba am diplôme d'état en France par exemple loolu aussi ci wàllu personnel am nañu apport boobu euh, ci wàllu médical ci ay at ci ginnaaw bu ñu jàppee aussi ne euh, wàllu formation mairie bu Diourbel bi yaakaar naa ne agent yi xaw ma na am na ñu fi nekk ñun ñoo leen maa njëkk fexe ba ñu former leen ci informatique maanaam wàllu ordinateur pour la première fois ñu ci am une formation en groupe comme ça en résidence yu fële ci wàllu booru Mbuur ñu toog fa ay ay fan di bénéficier wu de cette formation la donc loolu tam fexe woon naa ba lijjanti ko ci biir euh, pour les agents de la commune Euh, diggante bi am na yeneen yeneen mbir sans yoo xamante ne euh, diggante nit ak nit lay doon bu ñu demee nag ba ci kanam bi ñu créé mouvement Dekkal Diourbel dañu bëggoon a yaatal xam nga kuy def loolu ay at ci ginnaaw euh, bu la waxee ne la man dama bëgg def mouvement développement kooku yomb na gëm te loolu dama bëgg ñu ànd ci am ci pas-pas parce que lu gaaw-gaaw bu ñu lancé mouvement bi sans ñuy am suñuy suñu récépissé commencé nañ def ay visite médical comme nu ko Souley rappelé mu nekk action yoo xamante def nañ loolu nag bu ñu ko fàttalee dafa am ci loo xamante ne ci la ñu jëm euh, mooy méthode bu ñu nar a liggéeyee à partir d'aujourd'hui jëm ci kanam parce que assemblée générale moom dafa war di am loolu chaque année wala bu ñu toogee ab diir dañuy ñi nga xamante ne ñoo ànd ci euh, idée bi ñu joxe ñi nga xamante ne ñoo ànd ci ni ñuy doxalee dañu war a ñëw waxtaan suñu biir loolu mooy assemblée générale thème bi nag ma choisiroon ko def Diourbel face à son destin Diourbel face à son destin bilan et perspective au lendemain de l'élection présidentielle maanaam Diourbel tey muy département bi muy dëkk bi muy région bi dafa jàkkaarloo ak ëllëgam ëllëgu ëllëg nag mën na baax mën na bon mën na gën mën na yées loolu yaakaar naa ne kilifa yi fi toog aussi xam nañ loolu te moo tax aussi ñaan am solo ñaan pour ëllëg ñaan am solo boo booleeg liggéey léegi euh, thème boobu am solo parce que dëkk bi dafa am changement changement boobu nag il faut ñu waxtaane ko tuuti parce que mënuñu nekk un mouvement de développement te ne duñu waxtaane li xew ci réew mi ak li ŋànk réew mi ak ñun naka la ñu mën a taxawee ba yokkute am ci ñun ni ñu ko ni ñu ko xalaatee. andi foofu ay médecin yu am qualité voilà dafa consultation bu mucc ay wax dëgg yàlla population bi yëpp kontaan mag ñi xale yi ñëpp bénéficié wu mu nekk loo xam ne lu ñuy rafetlu euh, population bi tamit néew nañu bu ñëwee naan la ko wax ñu ngi la ciy bu baax. Euh, monsieur Daouda Tall euh, hôpital li nga ci wax hôpital bu Diourbel man euh, avant ma lay xam man foofu laa njëkk a gisee say démarche foofu noonu bu Diourbel mu nekk tamit loo xam ne lu mucc ay la parce que kuy jàppale ay nit ñu nekk ci jafe-jafe surtout hôpital voilà kooku noonu kenn mënu koo fay yàlla suñu borom rek lañ koy baal bàyyee mu fayal ñu ko ñu ngi ci kontaan kontaan contentement bu rëy daal lañ si am en tout cas euh, di la remercier bu baax di ñaan yàlla mouvement bi jëm sa kanam ñëpp jàpp parce que bu ñu nee dekkal Diourbel rek ñëpp dañoo war a ñëw euh, jàpp si parce que boo génnee ba xool yeneen région yi boo duggee Diourbel da ngay rus entrée bi da nga njëkk a rus découragé par rapport ak yeneen régions yi xam ne ñëpp raw nañu te bu ñu nee Diourbel wax dëgg yàlla waxtu na des gannaaw ñun waruñoo des gannaaw benn benn benn yoon. kon nag euh, monsieur le président ñu ngi di lay ziar euh, par exemple ñun amuñu lu dul Jurbel Jurbel lañ dëkk Jurbel lañ am ku ñëw ànd ak ñun pour defaral ñu Jurbel Jurbel ñu ànd ak yow pare que sa sa bopp ngay defal. vraiment par exemple li nga action yi nga xam ne par exemple wax nga jaf def nga ko jaar parce que dëkk bi di njaarim par exemple boo xoolee tam ñun amuñu usine benn usine lañ fi amoon muy Suneor dee na jeunesse bi fi toll amuñu lu ñu liggéey bu dul secteur informel bi di nekk soit di jaayantu wala ñu nekk seen atelier yooyu amul beneen activité boo xam ne par exemple jeunesse bi ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy utiliser fii ci ci ci dëkk bi. mu li jëm aussi tamit ci par exemple ci nekk ni doomu aadama yi mu li jëm ci ci nawet bi li par exemple comme mbënn mi fi am. waa Diourbel sonn nañ trop par exemple par exemple ci euh, chaque chaque hivernage bu amee dañuy am problème problème euh, ndox ndox ñi génn seen kër yi. te loolu yëpp li ko wane mooy problème assainissement bi nga xam ne par exemple ay politique jaaroon na fi xane mi ni ñu ko defaree ni ñu ko defaree nekk na loo xam ne par exemple euh, am na ñoo xam ne gisuñu seen bopp parce que daf leen yokk coono yaa bi bon boo xoolee par exemple tey Diourbel boo xoolee ñetti voie rek la voie bi jëm kër Sëñ Mbay Sarr jaar boor yi boor yi TP foofu bu mu ndax mi ñëwee dafay baase ba oto mën a faa jaar beneen bi mooy bi nekk yutu euh, hôpital bi boobu aussi tamit la même chose bu nawet bi ñëwee ndox mi di jógee horticole ba envahir tey tëli bi benn mooy bi nekk pour pour Cheikh jaar quatrième bi mooy bi nekk ba bi benn alignement ba léegi bi nekk yoonu kër kër ndugur bi noonu léegi boo buggee jógee fii côté bi bon dem côté bee fan ngay jaare loolu problème la par exemple pour xam ne par exemple xëy na peut-être suñu suñu kattan ak suñu mën-mën may ñu par exemple ñu waxee ko fi ñu ko fi ñu ko war a waxee à travers par exemple mouvement citoyen Diourbel Dekkal Diourbel bi ñu ngi ko ko ciy lancé par exemple ñu seet par exemple ñu dimbali ci bokki Diourbel fii politique politicienne amu fi te fu ñu war a euh, euh, fu ñu war a taxawee dinañ taxaw ci loolu bërki démb am na kilifa gu ma toogal ma ne ko bu ñu deful ndànk ci njaareem euh, wala boog amuñu ñaanu mag ñi dëkk bi mën na dem ba suulu ndax ndox ñaanuñu ko yàlla li may wax nuru na musiba mais buñ ci jógul waxuma la inondation mais Jurbel mooy la ñuy dindi ci carte bi seeyal ko parce que loolu xam-xam la c'est-à-dire que dañu nekk ci lu ñuy wax les changement climatiques changement climatique yi mooy lan jamono bi ñu toll nii dafay faral di taw le réchauffement de la planète taw bi di gën a yokk dañu dem ba ni ñu développé baaxul mu commencé nag ci réewu nasaraan Europe amerique ba ci Chine ñu dem ba yàlla moom kéemtaan la yàlla dafa defar àdduna defaree ko noo xamante ne dafa jag yàlla bi mu ñuy jox àdduna bi dafa jag mais industrialisation ak pollution bu bëri dem na ba tax li ñuy wax couche zone mu tiim ñu nga xam ne mooy réguler température bi jant bi tey bu ñëwoon ba ci ñun fii kenn dootu fi toog di am fi di di di am fekkee sax bay wax donc am système boo xam ne couche d'ozone bi day ñëw jant bi dal ci kawam am lu wàcc am lu yéegaat mu réguler température bi mën a normal ñu mën a dund ci kaw suuf noonu la ko yàlla defee scientifique yi ñëw découvrir loolu établir ko couche d'ozone boobu muy kiiraay bu ñu tiim ci kaw saxaar si industrie bi développement bu bon ak pollution ak yenn oto yu ya nangam ak nangam moo tax ba nga xamante ne couche d'ozone boobu dafa dem ba affaiblir ba mel ne lu oyof euh, ni mu waroon diisee pour protéger ñu mu deñ mu wàññeeku bu baax loolu la ñuy wax changement climatique moo tax ñu war a def li ñuy wax développement durable te ñu dekkal Jurbel lépp lu ñuy def loolu dafay nekk loo xamante ne daf siy bokk mooy li ñuy wax le développement durab loolu nag bu demee ba am dafay am li ñu naan font de glaces képp ku gis àdduna seetaan nga wala nga mës a seetaan télé gis ay bërëb yoo xamante ne ay glace kese fa nekk ak ay rabu àll yoo xam ne ci glace la ñuy dund dañu dem ba nga xamante ne tàngaay bi dafa dem bay commencé seeyal glace yooyu glace yooyu bu seeyee ci gàttal ndox bi dafay ñëw bu ndox bi dee ñëw ni bu tawee ni mu ko daan téye daanu ko dootu ko téye plus tam règlement climatique am ñu dem ba nga xamante ne mooy tax lu mel ni ay tsunami wala géej ku gis géej géej mi ngi avancé bu baax ci Sénégal tey boo demee Mbour sali wala Dakar am na foo daan toog di feexlu sa xel xalaatatul toog fa ndax loolu loolu ci jamono la bokk léegi nag Jurbel loolu daf ko dal précipitation yooyu bu ñëwee ñun mënuñu ko dékku dañuy waxant dëgg di ko wax aussi pour ñu xam suñu autorités yi xëy na ñi ngi ci jéem wala nguur gi mais euh, dagg walla boog euh, sëkk réglé wul mbir mi euh, gas ay kii bassin de rétention wala xootal ko réglé mbir mi curage dindi salte bi ci kanaal bi baax na de parce que nag kenn warul di sànni ay mbuus ci ay kanaal muy téye ndox bi fi mu war a jaar wala ay mbalit loolu moom baaxul mais dindi loolu sax prépare nawet réglé mbir mi lépp lu ñu fi def daaw ren ba déwén ci ay action yi ma gis ni réglé mbir mi il faut que ñu ànd ci xalaat yi am ci ay jéego yu ama ama am solo pour mën a protéger Diourbel bu ñu ko deful rek dina nekk lu doy waar parce que dañu war di wax population bi langage de vérité kon nag xëy na ah euh, li am solo ñi ngi faj góom bi ndànk-ndànk mais nañu xam ne rek baax na nag ay effort li ñuy dégg ci dëkk bi dañu koy def ci dëkk bi ay effort la waaye nag il foog ñu am ci yeneen jéego loolu du ko sottal tout de suite wàllu développement ñu ko lijjantiwul bu ñu ci amul ay jéego fi ak ñetti at juróomi at yi di ñëw yu leer yu xam ne xam nañ am nañ fu ñu jëm fu leer man damay xaw a mel ne kuy xaw a découragé bu boobaa ndaxte nag dafa jot dafa jot façon xaalis alal bu nekk façon lu nekk li fi dugg rek mënoon na développé njaare mais niñ ko organisé baax yàlla nag dafa def ñun biñ ñu tàggatee tàggat nañu ci développement politique de développement ku ci nekk fi nga gën a mënee nañ la jàppale ci fi nga gën a mënee ngay amal njëriñ askan wi man loolu laa gëm man mënuma faj ku feebar ñëw ah boo ma wooloo tam problème bu rëy lay doon parce que mënu ma ko mënu ma leneen mais li ma mën mooy càmbar projet développement euh, naka la ñuy xarañtee ba ut financement wala boog réew mi nu muy doxee man ci loolu laa xam ci loolu mooy sama cœur de métier moom laay jàngale ba koy jàngale université de Dakar donc nag euh, ku nekk rek bu ñu di jaxasee mbir yi daal nit ñi utewuñ xam naa ne pour convaincre ñi fi nekk jafe jafe na ndaxte dañ leen a wax waxaat leen loo xamante ne gisoo leen ci dara donc nag c'est important man ma leeral ne man su ma ñëwee di wax développement c'est parce que man loolu rek laa xam ci laa jàng ci laa liggéey ci laay wax ci lii loolu ci Afrique ci feneen loolu laa mës xam donc mën ngeen ma gëm que ni bu nekkee xam-xam rek mooy développé Diourbel ak tam pas-pas ak jub boo leen ànd ak man dinañ développé Diourbel